sëriñ mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. xéewal feeñati na ci Touba Darou Minane. boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke nekk ci Touba Darou minam ci mbedd mi ubbi ko ci penku penc mi jëm 28. gérant ba di Serigne Khadim Rassoul Gueye. ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew.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 Mbàkke moom fanweer fan yu mag fépp si laa koy woore wenn mu bulaay nekk doole ju bari tëcc rek mbaa ma tëcc ba ngeen moom ana ok bro maa sàkk woon jotaay bi comme li ma leen daan wax rek du ma tàyyi si di leen ko wax yàgg nañu te ay nit bu ndee ànd dañu war taxawal benn mouvement boo xamante si nii lépp lu ñu song rek dañ koy daal te ñun gis ngeen fan yi soir yi fi am gars yi tëgg mënuñu te ñun suñu boolooyee rek yaakaar naa lu ñu songu daan ko lii nag ku ne am na ci xalaatam ma leen diglu yéen ku ne indi ci idéem rek. koñ bi ñu ñëw fi nekk association bi da nga koo taxawal. pourquoi ñuy tëgg ay soirée ñu gënuñu déedéet ay concert dañu ko tëgg théâtre verdict lu ne war na fa mën am. c'est kon jot na tey ñu taxawal association bi. dama bëgg tey mu judd tey. tey la judd maa ngi si sama naa ngeen xalaat tur bi ñu ko war a mën a tuddee. loolu aw benn problème maa xalaat ne ñu xalaat ci ñun ñëpp. ah booy ah waaw maa ngi leen wax ci yooyu noonu waaw am na solo am na solo li ngeen wax nii booy am na solo ndax ah, ñun suñuy jamono amuñu woon xel mii maa ngi fàttaliku jamono may ne ci samay samay doole rek ne ci mbay wu métti bay ba am xaalis bi tan jaay jël ma ñu ne ko fa fet dama ko carte la ma bayoon lépp laa carte ñun benn initiative bu baax amuñu ko woon yéen daal yéen ci affaire association ak yooyu noonu rek père mën naa laaj. waaw yow turu bi la ma ko indi. 11. ah maam euh, El Hadj Diouf maa ko jox 11 bi <laughs> loolu tax ñu amee 11 dama cee aayoon lool. ci la ñëw waxtaan ceeg man ma ne ko boo demee ne jox 11 bi bu la joxee 11 bi rek da nga da nga da nga def lu kenn defut. Ah, <laughs> moo tax ñu bari sax maa ko jox 10 bi. ah moo tax <laughs> ah. ko joxee 11 bi père. man ca ndar laa ko joxe ca goxu mbaj père dañoo bëgg heure bu ñu gestoo rek mhm. gis la ci suñu ginnaaw waaw dëgg la loolu daal moom bëgg nañ dëgg la dëgg la booy li ngeen def nii am na solo am na solo waaw ab koñ looloo koy doxal man maa ngi seen ginnaaw lu ngeen def mu soirée yëpp ànd naa ko yéen góorgóorlu leen ci dégg ngeen bu leen ci kenn jëlee nag am na ñoo xam ne daanaka bu ñu leen dugalee du ngeen dem fenn mais góorgóorlu leen bu nga nee bay war a jënd ay wañ yoo xam association moom daa baaxoo defar ay baas ak yooyu bu nga nee boo def ay wañ wala lu ngeen bëgg a jënd dinañ ci yànde Yande bu ngeen demee ci Yande mu jaay leen du ngeen bëgg mu jaay leen ko Yande gaz daal bi la ne ñu ngi lool waaw ko soirée si mu tëgg soirée bi ci xale yi xew léegi xale yi xew <laughs> <laughs> ah xanaa gën a ko xew rek dangoyal looy saa xale yi ko daa bëri de ah xam nga sax man damay wax faral wax ko de naa leen man moom <laughs> ci bàyyi kii laa bokk bàyyi bàyyi waale yi ah di ah, nga bokk ci laa bokk ah yow yi da nga dégg nag ah ci laa bokk est-ce que xam nga man damaa neex ah yàgg naa koo dégg nag. loolu yàgg naa koo dégg. wuyu ma yàlla woo. waaw ma ne ma dégg nga ok. TPR. eh, eh sama gars paa bi bu ñu jàppante man dinañ am dara de ndax paa bi dafa dégg yaa ngi dégg léegi li nga bëgg mooy nu nañu taxaw liggéey suñu koñ bi def suñu ay soirée yu taxaw yaa ngi comprendre. dimbaloo gars ñun ay xale lañ nan dund. ak force yu boole ko ñu ginnaaw sax xamal laa bëgg fal na nañ jàpp jour woo gars yëpp yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci loxo yi wat gaal ak yëgoo bu baax ci woote gi ngeen ma woo fii waaw sama wax nag dama koy tàmbalee ci sàmba ndax yaakaar naa bi mooy ñaari yoon nga woo te saa bu nekk moo wax la li nga xam ni ci laay dox waaye li ma fi dégg ma fi toogee ba tey dara neexuma ci te bu leen jàpp ni mukk kii wax ak yéen seenum noonu la déedéet gis nga dëkk bii ñu toog daara la boroom daf ko sanc ci jaamu yàlla ak liggéey benn yéen nag bu ngeen xamoon dëgg-dëgg yi war may dëkk bi da ngeen am xalaat leneen def lu leneen du lool mere naa la nag lool ndax ban dajee nga ne ma danga am koy roy ci nit adduna yi mu waral ngay takk jaaro comme ni ko jigéen di takk di wattu wati si yu ñaaw comme melokaan yoo xam ni du melokaanu jullit ba ma la ci waxee tamit loolu dama koy beesalaat fii ba mu duggaat sa nopp nga xam ne fa ma tegoon sama tànk tey laa fi dogoñ yéen ay ndaw ngeen rawatina ngeen dëkk Touba kenn waratu leen a jàngal li ñuy solo ak ni ñuy bindoo nit ki buy dund te di ab jullit la te ne ab murit la dafa am melo dafa war a am melokaan bu mu yore waaye di roy koo xam ni bu ëllëgee te yonent bu tedd bi nee na képp koo roy yomal xiyaam yéen lañuy ñuy boole almarhu man ahaba kenn ku nga yàq nga sopp yomal xiyaam moom la ñuy boole sopp soppulu ma benn nitu àdduna koo xam ni la mu nekk suñu borom gërëmu ko ëllëg ñu may booleeg moom te may mbubboo ab jullit wala may mbubboo ab murit te bépp ndaje bu nit sos ak ndaje mu mën a doon te jëmut ci yàlla jëmut ci yàlla rek tax wala ndajem njariñant lenn lu bon luñ ca def yow ma ko sos ba ilaa yow mi diina li fekk ndaje may dox sa bàkkaar di dem bu dee xewit la woo génne muy xeetu watu goo xam da nga koo génne te dara soppuñu ko ba ilaa yow mi diina képp ko watoo na man nag roy nit àdduna taxuñu maa jóg ndax su may ay ndax man dañ ñëw wutal royukaay te ma xam loola tegge sama tànk ndax yàlla moo bind mbindeef yëpp bind ci Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam muy suñu roykaay ñu war koo roy ci lépp Serigne Touba wax ko ci téere yi bur benn du ñaar kon ñu war nañu am comportement bu baax war nañoo xool lu ñuy solo tubéy joo xam ne góor waru koo sol waroo ko sol jigéen na nuru jigéen góor nuru góor waaye di wat sa bopp takkub jaaro di roy koo xam ne si àdduna doo nga ne ci xol bi yàlla yàlla nekkut ak moom man duma am leen teg te lu ci waay mën a jëf bis boo demee di nga xam ni àdduna jërul àlaxira àlaxira jërul àdduna man nag ngeen baal ma waaye bu ngeen mënee gàttal daje bii fii ngeen gàttal ko fi su ngeen ko mënut ma ci kenn woo te bis bu ngeen fi taxawalee lenn loo xam ne lu jëm ci iblis na ngeen bir ni bala ngeen a taxaw siraat da ngeen ko waxal da ngeen da ngeen ko layoog si Ahmadou Bamba ngeen baal ma kon maa man su ma xamal lii nga may doyee sama tànk du fi jaar yéen leen a wax da ngeen war diglu rek ban wax ngeen jëfee man nag maa ngi dem sama yoon ñu ñàkk fay dañu mais Cheikh président war na ñàkk fay di man dama si génn man maa la fi ñëw ko ñu def mais mais waay go waay mais la mo te wot la li waxtu wéy wu ne dem na tëddootul delsi bés bu wéy bu ne dem na tëddootul delsi weer wéy wu ne dem na tëddootul delsi at mu wéy mu ne dem na tëddootul delsi lu ci wéy ci yii rekk yaa ngi gën a jege dee kon nanuy bàyyi xel ne at mu jàll mu ne dox nga jëm ci sa bàmmeel lu tol at yaa ngi woon gannaaw sa kër wuti dee lu tol nem at mbokk yi dee du jëmm jooy gis mu taxaw sa kanam di la xaar du jëm ju lay topp ngay gestu di xam fu mu toll du jëmm juy nekk sa wet ngay di ko gis muy ànd ak yow wala di jekkiwaale ak yow déedéet dalay bett ka flag doole kenn mënu ci dara mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba xéewal feeñati na ci Touba Darou Minane boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke nekk ci Touba Darou Minane ci mbedd mi ubbi ci penku penc mi jëm 28 gérant ba di Serigne Khadim Rassoul Gueye ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew ay jumtuwaay yu am qualité dëppoo ak bépp norme bu boulangerie di laaj li ci gën a yéeme cet gu mat sëkk lañu àndal ci seen liggéey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 Mbàkke moom